Macky sàll woo na ma këram ci kanamu jabaram télévision laa nekk mi ngi nii te yàlla laay waxal ci kanamu soxnaam ne ma Arouna lan nga bëgg ma leen di reetaan loolu am na donc man bëggu musuma bëggu position. mais pourquoi ma musuñu maa lan nga bëgg mais parce que bëgguma position maa ngi sant yàlla li may def ba mu egg ci Sénégal mais loolu doy na ma parce que je suis quand même j'ai des compétences compétences je pensais que suñ ma joxoon miin kese du am ku ko euh, euh, euh, conseiller ci énergie renouvelable du am ku ko conseiller ci agriculture du am ku ko conseiller ci pétrole bii ñu jëm donc joxoon ma benn ministère kese c'était pas l'intérêt du Sénégal te man intérêt du Sénégal moo tax ma ñëw fii jete à une dimension internationale boo xam ne musuma xalaat ne dinaa ñibbi si Sénégal man Abdoulaye Wade moo tax ma ñibbi si Sénégal Japon la ñu daje may def conférence à Kurashiki University l'université de Kurashiki dans le Okayama au Japon foofu la ma woowee ne ma nañu daje euh, New York ñu daje New York la question qui m'a fait revenir au Sénégal dafa ne professeur Arouna Coumba Ndoffène moom Abdoulaye Wade un grand homme mu ne ma tu as tu aurais fait le tour du monde à la fin de la journée on va demander qu'est-ce que pour le Sénégal nee na su mu ne ma sooy dem Chine di fa jàngale Japon di fa jàngale dinañ la laaj bis lan nga defal sa réew loolu moo tax ma ñibbi si Sénégal Abdoulaye Wade moo tax